الله الرحمن الرحيم أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية سلام خاتمك الذي كفيت الملام صلى عليك أبدا ما سلام في الآل والأصحاب ربنا سلام قست مقاما دونه كل مقام يا نور كل عاب سام وقام leen seereel ni jëmm ju baax la ab jullit la ab taalibi la te it li nga xamante ni moom la yàlla bëgg ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba ci la nekk ci la mas a nekkit nag ndax nit ñaare man ngaa xëy xëy rek am lanteeg moom wala nga xëy xëy gis ko wala nga xëy xëy dëkk ak moom wala nga xëy xëy am loo séq ak moom ngir àddina waaye la jiitu loolu mooy fam gane àddina ak fam yaroo ak la ne ci moom nan la def baloo la ne ci moom ginnaaw ndimbalul yàlla bi ci njëkk mooy mu bokk fu baax ndax ak mbokk yàllaa koy def waaye ak mbokkit ginnaaw dogalub yàlla des koy tànn ndax sëñ Tuubaa daan na wax ni doomkat bala nga koo am dangay tànn ndey ja ba noppi ndey jaat bala nga koo am da ngay xool askan wa ba noppi ndax ba ñuy xool ñeenti soxna yi nga xam ne nit war na koo mën a am am na ay critères yu ci am te yooyu yëpp ak tànn la diina ca la bokk mel na ne taar ca la bokk waaye ab judd ca la bokk waaye loolu lépp li ma ci jubloo wax rek mooy ngeen xam ni daa bokk fu baax ndax ay mbokk ma ngi nii toog ku baax it yar ko muy sëriñ Saalihu Mbàkke di doomi sëñ Touba def ci moom jikko yoo xam ni sëñ tubaa nee na nit kat danañ la ko tudde mu jël ci yow ay jikko nit it danga jël sa doom may ko ko waaye nit it da jël sa doom jox ko mu yar ko waaye nee na ñaar yi mu njëkk a wax bi ci mujj moo ci ëpp doole muy yar ndax nee na yar photocopie la li ne ci yow ngay def ci ki kon moom lu ne ci moom rek sëriñ Saalihu Mbàkke la sëñ Saalihu nag dara lenn lu ñuy jaare fi moom di ko xeebe diine amul lim def ci yoon ni def ko ci diine def ko ci doomu aadama defal ko sëriñ bi mi ngi ni fàng nit ñi di ko di ko tëg ba Murtada lislaam rek ko ñor leer na ma ne xol bi sedd na bi mu ñëwee fekk fi tarixa yëpp ndax maamum sëñ Tuubaa moo ni fa kulli wirdin yuridal murida li xadratillaahi wala yahida sawaw intama ilal jilaani aw intama li ahmada tijaani aw li suwahuma min al aqtaabi is kulluhum xat an ala sawaabi mu wax ne tamit Cheikh Ahmad Tidiane Serif gërëm na ma raddi an yi sibtuhu tijaani alay ridwaani mu bidul jaani tamamtali bi maa bihi tijaani faaxat wa kuntuli bil may jaani mu wax ni Cheikh Abdou Khadir Jeylaani gërëm na ma raddi an ni sibtuhu jeylaani alay ridwaanu lazi axlaani lii kuntama faaxa bihi jeylaani alay alpulaar yi nga xamante ne diine ci ñoom la jaar ba agsi fii Cheikh Umar dugal ko fi mooy jëmm ji jëkk a ñëw Mbàkke ne daa dem ba Makka ñu ne ko Mbàkke gi ngay seet ma nga ca sow ba bi mu ñëwee la ne gis naa leer goo xam ne ci dëkk bu mu ne fii ci koy moom ci kër gi lay gën a jamono ak moom ku gën a jamono ci Mbàkke alaaji Cheikh Omar lañ ko tuddee sëñ Omar Bousso yi nga dégg ak Omar joo dégg ci Mbàkke Omar mooma buñ la ko tuddee wut kan ko tuddee yow lañ ko tuddee kon bu ñu leen fi fekkee sëñ nu def lii sëñ Saliou bëggoon Moustapha wax na ko léegi daa ko ku ñëw ne sëñ Mourtada dañuy laaj ba xam murid dina julli ci jumaay Tijaan hmm, salla murid de warta julli ci jumaay Tijaan ñu ne ko ndax Tijaan dina war a julli Tijaan it warta julli ci jumaay murid di ñu tax mu ne jullit ci jumaa yàlla lay julli loolu lim la fa bëgg a wax mooy murit amut jumaa tiijaan amut jumaa yàlla moom moom jumaa lool na la bëgg a wax kër yi mu daan dem ci Europe nga xam ne barki démb lañ dem yi maa ngi Moustapha mi fekk fa sa mag suñu xàbbaan moom Cheikh Moustapha barki démb rek ñu dajewaat ci bisu buur siin bi ma ko koy fàttali mu taxaw fa taxawaay bu mat sëkk ndax doomi Cheikh Moustapha ku ko gis Europe kenn du laaj lan la fi wut suñu xalaat mooy ki nga xam ne bu ma sa bu avion bi mësaan a jóg rek ba mu gestu gaañi muuñ la muy muuñ dafay daf koy leer ne ñu bëri dinañ fàqe ci kéefër ñëw ci lislaam soo mësaan jàkkaarlook moom doon ab tubaab say cër mooy njëkk a nagam bu la xoolee bëtam yooyu ba ba siggi xool la danga naan li nga koy njëkk a wax mooy soppil sama tur gaaw damay tuub turu yàlla wow ñuy wax xaar te mu ne ci gaynde nga xam ne léeg-léeg mu def ko mala day dem ba jàpp ko Cheikh daa moom la moom kon yow Mbàkke boo fi ñëwee aajooy jaam ñëpp fañ nga fekk si fi nag jàmbaar ji sëñ Moustapha tudd léegi nun li tax nu bëgg ko xam nan ko bërki démb lii xew ci réew mi kenn sañ ta wax yaa jëkk a génn jël engagement nga xam ni man jamono yooyu damay toog yàgg rek bi nga nee Macky sàll kaay jàpp ma nga xool damay toog yàgg xool ci internet bi bind sañu seenu kan xool ba xam dañuy def arrestation wala déet ma ma may may dugg tinu ma ne ah du ko laal de cëy bu ko laaloon jël ci engagement yoo xam dama barke xaadim rasul man sëñ Tuubaa rek laa yaakaar damaa tiit li may am tey leer na leen ni yéen ñëpp xam ngeen ni maam moo am fit moom fit rek maa ko ji ma doon wax ak fit fit saxay tax nga nga def lu mel nii kër gii mu taxawal nit mën na fee dugg sax foog ni bëgg àddina la déedéet day wane ni sëñ Tuubaa mën naa mu ne sëñ Mbàkke Soxna Lo bi mu taxawalee palais bi ci Taïf dane damaa xam ni nit dina fi ñëw yor ay ñi daan xeex lislaam ay fetal lañ yoroon ak i xeej ay xeej lañ njëkk yor ba yàgg ñu yori jaas yi ba yàgg ñu yori fetal léegi nag bàyyi nañ loolu ay malette xaalis lañ yor mu ne waaye boo defee lu mel nii ñu ñëw ne teykat na suñu xel dem ci diw fi mu ne ñuy xeex lislaam buñ nee nañ jëndi sañu Ousseynou kat ñooy leen apix la dëkk ñuy dugg baax si ci kër gii buñ duggee mu taaj leen bool boo xam ne leer na ma ni bàyyiwuñ ko fañ jógee oto yi war bi nuy ñëw fekk nañ fi bu ko dàq wala yu ko dàq boo moytuwul nañ dencaat seen xaalis liggéeyal lislaam ka xoolal soxna yaa ngi yor seeni saak tant boo xam ne barke borom Tuubaa xool na fii ba ca baas bi jigéen ñi sañse góor ñi toog di xaar ku leen waxal ci sëñ waa ji toog ci tàngal ci téere bu mu jàng daal daal léeg-léeg mu ne ku xeesal da dem safara jigéen ñi muur waat yàlla bu mu yor caabi ci ku jëw yaay mattu nangam yóbbu na ñëpp sawara mais fi ko yàlla na toog taabalam jëpp sept cent cinquante ba mu pare ñu ne Mamour bismillah waa ji ne ma kaay toog taabal ji ma ne ko man du ma waxtaane taabal jug taxaw daal ne ko oustaz jërëjëf li nga wax yëpp dëgg la yéen yàlla moo indi constitution teg ko mais nag constitution boo gis am na décret décret boo xam ne yàllaa koy jëlaat fi mu ne nag décret daa jot ma ne yéen waa baas bi yéen laay laaj yàlla lii waa ji wax ku ne def na ko ci baas bi ba ci man waaw ah, damay laaj bu ñu yàlla lakkee sëñ Tuubaa lu mu doon def làmbar naag maa yomb lu mu fi doon wut lan la ñu jariñ ana li bëgg Rasulullaay baas ba jaxasoo benn waaye daal ñu ko def kenn ma ne maam Thierno mu jël micro bi daal ne ma premièrement cent mille a ngi nii te day mat deux cent te waxtaan man avant tout commencé ma man commencé naa dem àjjana gis nga li gën a garaaw oustaz ba maa ko jox gasoil moo tax gars yi nañ bàyyi mer sëñ Mountakha ngi foo ko xoole mu ree démb laa jógee ci moom yóbbu waa Gabon ministre du tourisme boo koy jub muy ree mais ñàngal la ba foo ne yow yow la yow yàlla yow rek la yàlla ne ah lan sëñ bi ne asalaamaaleykum jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfate Serigne Saliou sëriñ bi ne ñu ngi sant bu baax mbokk yi fi teew xam naa comme jataay bi dafa xaw a yàgg bari na kilifa yoo xam ne ban tegee xeer wi rek lan bëgg a yeeweeku man maa leen fi tënk ngir ñu xaar yeeweeg sëriñ bi rek sëñ maam Cheikh mi nga xam ne moo fi teewal Cheikh Mouhamadul Muntaqa te mata ko sëkk nag. mu yeewee mbooloo mi rek bu ko defee waa daara ji ne bu ñu añee ba noppi doonoo am réunion générale fii ci kaw réunion waajal màggal gi ne képp kuy membre ta bokk ci daara ji ndigal li mooy nga xaar ban julli tisbaar añ yéeg ci kaw def réunion bi mën a joxe programme mu màggal gi bu ko defee bu sëriñ bi ñaanee gan ñi moom ñu yeewi leen dëkkandoo yi imaam yi sëriñ bi ne sëñ maam Cheikh maa ngi lay sant bu baax di la yóbbante ak cant ca sa mag ju tedd ja Cheikh Mouhamadul Muntaxa di la ñaanal yàlla nga dund ba doon xalifa général de Mouride tan fekke ko ñun ñëpp ne demb rek ñu ngi ciy waxtaan man ak yow ma xam ne ku ne la jàkk de ma ne ku ne la jàkk de dina yëg ne Serigne Touba lim na la ci ñu ko war a wuti ci xilaafam gi ndax ñooña dañ leen di tànn ñàkk koo wute nag te tewu a nekk ci biir sëriñ bi waaye ruu yu murit yëpp nga tee leen di leen lijjanti ñoom ñëpp wuutu ci sëñ Tuubaa ne kooku dañ koy tànn kooku sëriñ bi rek lay soob ne ku la gis te xam dara dina xam ne bokk nga ca wahab lana surriyatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu nee ñaanuk Sëriñ Tuubaa googu mu doon ñaan yàlla may ko sët yoo xam ne nee fa sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam fa la ñuy teg seen tànk te duñ ko teggi ba mukk loola de ku la gis rek xam ne yaa nga ca ndax lisaanul xaal day wax ne lisaanul maqaal di wax waaye ku toog ak yow rek dina yëg ci lisaanul xaal ne ci ñi teg seen tànk fa sëriñ tubaa tegoon tànkam di xamal mbooloo mi ne leen ne jëmm ji toog teg si woon xeer wi ne boroom xam-xam la bari na ci yoonu murit ñu ko fekk njaareem kër sëñ Mourtala ga ci kër sëñ Mourtala ga mu def ci ñoom xam-xam mu def ci ñoom xam-xam bari na koy dégg bari na koy dégg ginnaaw xam-xamam ginnaaw xam-xamam sëñ maam Cheikh moo ko jàngal ne sëñ maam Cheikh mii moo ko jàngal bi ko njëkkee gis ne bi ma ko njëkkee gis foofu laa ko fekk foofu laa ko fekk ma fekk kilifa yëpp toog ma fekk kilifa yëpp toog mu toog teg benn sajaada mu toog teg benn sajaada ak taabal bu rafet ne ñëpp ubbi seen i téere muy jàngale ne téere bu naqaree jàngale muy seexul xalil nga xam ne fuqahaa u yëpp moom la ñuy waate moom la ñuy waate ne kun na la daa dégg fekk rek nga dugg ak moom ci seexul xalil te daanelee ko xamal ne kii ne ku dégg fekk la ne faqih dëgg ngi nii boroom xam-xam bu mag taragal yàlla kon nag suñ jataay bi mbàkke nee ñun du la ñaanloo de dan lay sas sas fi toog nee ñi fi toog ñëpp yaakaar moo leen fi andi ñu yëg ne tegu xeeru jumaa lu rëy la ñu ñëw teewe ko te maa ngi lay seeral jiitu teewe gi te maa ngi lay seere ne lu jiitu teewe gi ne damaa ñëw dëkk si fii ne barab bii taalibe yi ñoo ko jënd ma tàmbali di kocc koccal ñu encadré ma ànd ceeg man ne ana jëwriñ universel Pam Ndiaye jëriñ boo deggee sama kàddu kaay wuy sëriñ bi ñu ànd kook man ba barab bi toll fii mu toll ne bi ma ñëwee nag damaa gis bayal bi xeymam ko jumaam lool. xeymam ko jumaam lool. gis ne gox bi yëpp gox bi yëpp. bu ñu bëggee julli jumaa bu ñu bëggee julli jumaa. dañuy dem ba apix. dañuy dem ba apix. pour julli ji jumaa ji jumaa. ma ne ah waa barab bii de. ma ne ah waa barab bii de. buñ ko mën a def jumaa dana baax lool buñ ko mën a def jumaa dana baax lool. Paa Guèye mii. nee Paa Guèye mii. di dëkkandoo di dëkkandoo. na ma bii de. ku ñuy wax ka moo ko moom. ku ñuy wax ka moo ko moom. mi ngi ci mbooloo mi. ka mi ci mbooloo mi ñëw na. ni ma moog rakkam. moog rakkam. ay ay pël lan waaye kër lan ko bëgg a def de ma ne ah, ah xanaa kon ñu bàyyi noon rek waaye yàlla lu mu nar a def rek ba benn bis rek mu ñëw siyaar si ma ma laaj leen ma laaj leen ñu ne ma ñun ñoo moom teere yi danoo ñëwoon doon la siyaar rek di feddili kóllëre gi yëg ne dangaa dëkk si fii man ne leen waaye man teere bii laa bëgg mu nekk jumaa ñu baax ñu nekk ñu baax ma waxtaan ci ak ñoom ma waxtaan ak ñoom ñu mujj waxtaan ci seen biir waxtaan ci seen biir ba génn ci ba génn ci terrain bi lu mat 300 mètres carrés ne ba génn ci terrain bi lu mat 300 mètres carrés féeteeg mbedd mu mag mi féeteeg mbedd mu mag mi ma ne leen ma ne leen bu ngeen ma ko jaayee day bu ngeen ma ko jaayee day danaa ko jaayante danaa ko jaayante bëgg naa mu nekk néegub yàlla. ndax bëgg naa mu nekk néegub yàlla. ñu ne ma comme néegub yàlla lay nekk. ñu ne ma comme néegub yàlla lay nekk. loolu de amul solo. loolu amul solo. jox na fukki million ak juróom. ne jox na fukki million ak juróom. ñu wut fuñ ci dëkke rek. ñu wut fuñ ci dëkkee rek. te jox la terrain bi te jox la terrain bi. te 30 millions mayu la ko. te 30 millions ma daal xam ne lii ndimbal la. ma daal di xam ne lii ndimbal la. Mbàkke. ne Mbàkke. taalibe yi. taalibe yi. laa dajale cent personne laa dajale 100 personnes. kenn ku ne 150 000. ku nekk kenn ku nekk 150 000. 15 millions daal di daje. nee 15 millions daal di daje. ma teg ko ci loxoom. nee barab bi daal di lew. ba ci gox bi ma dëkk. nee ba ci gox bi ma dëkk. kenn desu ci ginnaaw. nee kenn desu ci ginnaaw. toog. nee càmmale toog. Abdou Càmmale. Abdou Càmm. architecte la. architecte la. moo liggéey plan bi. moo liggéey plan bi. ba noppi ne ma. ba noppi damaa bëgg a dugal 150 000. damaa bëgg a dugal sama 150 000. te ci koñ bi la dëkk. ñu bari ci koñ bi. ak ñu bari ci koñ bi. ngir mu nekk néegub yàlla. ngir rek mu nekk néegub yàlla. ba tey jataay bi am ba tey jataay bi am. kon nag kon nag maa ngi sàkk nga ñaanal mbooloo mi yëpp. maa ngi sàkk nga ñaanal mbooloo mi yëpp. dañ ne nit lu muy def lu ne. dañ ne nit lu muy def lu ne. buñ gëstoo nañ gisi bokkam. nee buñ gëstoo nañ gisi bokkam. bu sëriñ daam kan mii rek ñëwoon. bu sëriñ daam mii rek ñëwoon. nga xam ne. Serigne Saliou Touré nawan a ngi nii. nee ku Serigne Saliou Touré nawan mi ngi nii. Serigne Saliou Touré. Serigne Saliou Touré. lépp lu mu am kees. nee lépp lu am kees. jëmm ji moo ko waral ji moo ko waral. lu Serigne Saliou Touré am lu Serigne Saliou Touré am kees. sëñ daam mi moo ko sabab. nee sëñ daam mi moo ko sabab. ndax ba mu ñëwee. ndax ba mu ci moom la nekk. ci moom la nekk. moo ko taxaw moo ko doon defal léppam tàqali ko wunu tàqali ko wunu ba ni Serigne Saliou Touré génne àddina ba Serigne Saliou Touré génne àddina ñu bokk baay ñu bokk baay bokk lépp bokk lépp ak sa kan male ne buñ teewoon rek doy na waaye waxuma la ak sëñ xabaan mi nga xam ne sëñ xabaan kan mi nga xam ne ñàkk jotam ne ñàkk jotam ne kees gépp xam nañ ko waaye ñoom fu ma nekkee ci lu baax rek dan ma ci encouragé rek loolu nag maa ngi sakk nga ñaanal leen ne sama jarbaat la seeko Seexuna Mbàkke mi moom it di sama jarbaat ne du jóg ci kër gi lu ma nekk mu nekk càng man waaye sama wëllëre benn bakkan wi sëñ Baara Xalil mii moom Cheikh Mouhamadul Fadal ndeysaan sëriñ bi ne maa ngi sak nga ñaanal ko ndax sababum ñëw soxna Ndey Faatu ci kër gi ne ci moom la ko yàlla jaarale ñëpp xam na ne ñu ngi waajal bisu maamam bi muy sëriñ Abdou Khadar ndax moo jur yaayam ndax moo jur yaayam waaye waaye teewul teewul daa bàyyi yitte yëpp jóge Touba ne da koy fekke kon nag maa ngi sàkku nga ñaanal leen ak sama rakk ju baax ji sëriñ Fallou Kane mii nga xam ne sëriñ Saliou ko yar ci moom la yaroo lépp ci moom la ko defee lu ma ne rek mu ne ca maa ngi sakk nga ñaanal leen Mbàkke maa ngi sakk nga ñaanal koñ bi bu baax yàlla def fi jàmm sotti fi ay xéewal ba yéene ju nu am jumaa ji taxaw na coleet jumaa ji taxaw na coleet taaru lool taaru lool te nuru yàlla te nuru yàlla nu di fi jaamu yàlla loolu ñu ko koy sàkk nga ñaanal na ko nee kee taxaw di photo sama rakk la sëñ ma xaali moom it lu ma ne rek mu fexe ba tasaare ko rek àddina yépp jot ci maa ngi sàkk nga ñaanal ko nee tele bi yëkkati ko ba ñépp di ko siifar nee di sàkk nga ñaanal taalibe yi nee mbàkke maa gëni taalibe ci àddina maa gën ay taalibe ci àddina ne bu ma neexee wax ko ne gis ngeen ñii ne amuñu ci man sago wootewuma ci rajo wootewuma ci rajo wootewuma ci télé wootewuma ci télé annoncé wu ma annoncé ma communication ne communication bu ndaw laa def rek bu ndaw laa def rek ku ko yëg rek ku ko yëg rek teew si nga kon nag na nga leen ñaanal ñu nekk ay milliardaire am xéewal gu ñu liggéeyal am xeewal gun liggéeyee Serigne Touba. am xeewal gun liggéeyee Cheikhul Khadim. am xeewal gun liggéeyee Cheikhul Khadim. ba màggal gi ñu dëgmal. nee ba màggal gi ñu dëgmal. ñu ñu ñu ñu yokk ci lool. ñu yokk ci lool. ba ba ba luñ ci yéene rek. ba luñ ca yéene rek. ñu def ko ñu def ko. maa ngi sàkk nga ñaanal leen maa ngi sàkk nga ñaanal leen ko. nee kuy taalibe. te ànd ak man liggéey bi rek. maa ngi fas. jëmm ju tedd ji sa jëmm ju tedd ji ngay Cheikh Mouhamadul Mourtada ngay Cheikh Mouhamadul Mourtada mi nga xam ne mi nga xam ne aw turam aw turam kenn tifliwu ko ne kenn tifliwu ko da koo indaale démb ci guddi démb ci guddi nee na ma sëñ Mourtada wan na ma sama loxo bi nee na ma sëñ Mourtada na ma sama loxo bi dëngal ko dëngal ko ni ko nii laa ko indaalee jamono ne ko nii laa ko indaale jamono aw turam aw turam da ko indaale da koo indaale sëñ Mourtada ku yéeme te yow ku ko nuru nga nag te ko nuru nga nag ba noppi nag donn ko ci jaamu yàlla ne àddina waxoo ci dara loolu ñëpp xam nañ ko kon nag ñu ngi sàkku nga ñaanal njaboot gi yëpp soxna ki nekkan moom it di sama mag di sama lépp di sa xarit yow mi moom itam mi ngi ci jataay bi maa ngi sàkku it nga ñaanal ko ñaanal taalibe yépp rek bàyyiwuñu kenn xam naa ne di toog ci sa wet di wax xam-xam moom xam naa ne di toog ci sa wet di wax xam-xam moom daanaka dadul ay du teggi ci ñun daanaka moom du ay kii ci ñun ndax moom ndax ñun euh, ndax xam na ni yow xam na ne yow baxrul ulum nga ne baxrul ulum nga ñun nag ak dex lañu ñun nag ak dex lan du sóoru géej ne dex du sóoru géej dañuy bañ a lab dañuy bañ a lab ndax xam na ne moom fa tabaarakallah lépp lu ñuy wax rek yaa nu gën a xam la nekk ca loolee kon ñu ngi wàcce suñu bopp toroxlu toroxlu yeeslu yeesal tuub tuubaat jéggulu tëbb taalibe yépp sàkku ci yow ci barke Cheikh Mouhamadul Mourtada sa baay bu tedd ba Serigne Saliou Mbacké sa baay bu tedd ba yàlla sunu borom defal tawfeex ku fi nekk. nee defal tawfeex ku fi nekk. wax leen amin ku fi ñëw yaakaaram bañ a tas. nee ku fi ñëw yaakaaram a tas. ñu ngi rafet njortu ni. nee ñu ngi rafet njortu ne. booy ñaan rek. booy ñaan rek muy nangu. muy fajo ajo képp muy fajuk aajo képp ku fi ne. ndax man kat xam naa la bu baax. xëy na nag xëy na nag. li nga gën a bañ ci sa àddina. li nga gën a bañ ci sa àddina. mooy kuy wax ci yow dara. mooy kuy wax ci yaw dara. mooy tax yenn jataay yi. mooy tax yenn jataay yi. waaye xam naa ne. waaye xam naa ne. Serigne Touba mu sotti nga. nee Serigne Touba mu sotti nga. ku fanaan ci kër gii biig rek. ku fanaan ci kër gii biig rek. xam na ne Serigne Touba fanaan na ci. xam ne fanaan na ci kër gi biig. loolu ñëpp yëg nañ. loolu ñëpp yëg nañ. ñu ngi nga yàgg fi lool te ñu lay ñaanal nga yàgg fi lool te yàlla na nga ñëwaat ubbite gi. yàlla nga ñëwaat ubbite gi. na nga ñëwaat ubbite gi. yàlla nga ñëwaat ubbite gi. ubbil nu ko. nee ubbil nu ko. nga fekke nga tal barkeb kin amul kudul moom barkeb kin amul kudul moom ne sa waajur wu tedd wa sëriñ Saliou Mbacké sant naa ñëpp ne sëriñ bi ne sant na imaam yëpp waa gox bi yëpp yàlla nañ ñëwaat indigré ko la ca des nag ne maag taalibe yi la loolu réunion màggal gi la ne danoo dëgmal màggal danoo dëgmal màggal war koo songu war koo song mu gën a taw féexe mu gën a taw féexe gën a taqaajoo gën a taqaajoo ñu bëggalati sëriñ ñu bëggalati sëriñ bi lépp yaa tooti ne lépp yaa tooti tey réunion bi tey réunion bi ay rëbbkat sax danaa leen keneen ne ay rëbbkat sax danaa leen keneen rëbb rëbb rëbb yàpp rëbb yàpp rëbb ay cokkee rek ay ñoom naat ñoom ñoom lëg ñoom kéwél ñoom ñëpp ci màggal gi lépp ci màggal gi sëriñ bi ne jërë ngeen jëfati jërë ngeen jëfati kon sëriñ bi nee sëriñ bi Mbàkke ñu ngi jéglu baax <laughs> nee sëriñ Xabaan Mbàkke yebal na fi rakkam mi ngi nii mi ngi nii toog borom kën su raxmaan borom kën su raxmaan ah? Serigne Cheikhouna Mbacke mooy tax Serigne Cheikhouna moom it ñu ngi koy siyaar bu baax a baax sëriñ Cheikhouna Mbacke sëriñ bi ne ñu koy siyaar bu baax ñu ngi siyaar sang yëpp nee ñu ngi siyaar sang yëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn jërë ngeen jëfati nee jërë ngeen jëfati kon tàllal leen nee tàllal leen leen sëriñ bi soññee ba noppi nee bu bu leen sëriñ bi soññee ba nopp ngeen diglu kàddoom yu tedd yi ngeen diglu kàddoom yu sell yi mu ñaanal ñu léegi mu ñaanal ñu nee ñëpp xaar xéewal yi yoo nuyoo sëriñ bi nee na mi ngi am ak yaakaar ci jitaay bu baax a baax a baax ci barkeb Seydina Xaadimu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na jot ni bu soobee yàlla lu fas sama borom dina ko def ci coobareem sama borom mi nga xam ne ji mooy boroom gëneel di boroom lépp nee na ko ñaan lu toll ni kartanam lu toll ni njërmandeem lu toll ni dayoom dina ko ñaan dina ci dogu ci mbooloo mi sa borom def ko yàlla bu nu sa borom jàppee ni nu toll yàlla nu jàppee moom ni mu toll sa borom yàlla nu jàppee ni mu toll bañ noo jàppee ni nu toll ci barke bi lislaam barke Seydina Xaadimu Rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam sëñ Ousseynou sëñ bi naan mi lay delloo ngërëm ak cant akum nuyoo nee na lii jitaay bii dafa am lu mu koy fàttali ci diggante kër sëñ Mandoumbe kër sëñ maam maxaali kan nee jitaay bi loolu la koy fàttali ndax lii nee na du tey démb la woon diggante sëñ Mandumbe ak taalibe sëñ maxaali kan ak taalibe sëñ Mandumbe nii lañ jaxasoo woon nee na at bi benn la tey gis na ni itam diggante boobu mel na ni feeñ nga ci feeñ gi wér ca na mag ñi jaxasoo woon jaxasoo ko waa kër sëñ Mandumbe ndax moom mii sëñ ma sëñ Abdou Ummi mi sama sëriñ man moo jur waajuram moo muy soxna maam bu sa Mbàkke waaw sëñ sëñ Abdou mi moomu euh, waa sëñ Mundumbe mooy waajuram kon mel na ni jot jeeg def ci la te sëñ ma xaali kan ku ne xam na ni ku jege ak sëñ Mundumbe la ci wàllu bokk ak lépp loolu maanaam xañ na gone yi duñ ko xam waaye ñun mag ñi xam nañ ko xam naa ne sëñ ma xaali kan <coughs> mooy lépp sëñ Mundumbe mooy lépp sëñ Mundumbe te moom meññeetu sëñ Mandumbe la meññeetu sëñ Tuubaa la ndax kuy sa waajur sëñ Abdou Ummi Mbàkke bu sëñ Mandumbe kuy sa waajuru góor sëñ Tuubaa sëñ Murtala Mbàkke mu sëñ Tuubaa kon ku ne xam na ni kooku moom ci la bokk bu baax a baax a baax waaw ah yow itam wax dëgg noo yàlla ah, li fi nga bokk nàmp ko muy say géñoo di say uh, uh, ween wax dëgg yàlla kenn du la ci fekk di la ci jëppi te noonu mooy li nga xam ne ji mooy li war a am sëñ bi delloo na la sant delloo la ngërëm delloo la siyaar du may delloo siyaar ndax kon day metti ci yow mi ngi lay delloo cant daal di la delloo ngërëm tey siyaar bi nga ko siyaar yal na ko yàlla nangu siyaar bi nga ko siyaar yal na ko yàlla nangu ci barke alxuraan bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñi ngi delloo foofu kàddu yi ndax danoo dañ noo teg lu xaw a dis ci na rek waaye danoo soo nu ñooy waxkat nga lay wax ak yéen maanaam sëñ xaadim kan waa juróom ñaa soxna Abdou Guèye moom sama yaay ñoo bokk ndey ak bàyyi waaw ah, yow sa sa rakk yooyu nekk moom nogay kan man maa ko ba yóbbu kër ma ndaw waaw bintu kan maa ko labat kër ma ngi ndaw waaw kon nag ñu ngi xaar baax a baax a baax ñu xam ne noonu lañ ci duggee nii tam salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu amin yaa rabbal alamin amin